maay ñëw di waxtaan ak yéen tey ci talaatay ndeer am na ñaari téeméeri ba Linguère Fatim Yamar Xuryaay àndeek barke Demba Lawbe Bo Njaay ak Seydaane ànd ak jigéenu ndeer yëpp taal seen bopp ca tata ba ndax keroog bañ leen jekkoo bark Demba Lawbe Bo Njaay ni Linguère Fatim Yamar li ñuy def mu ni ko mbarka dee jot na bés bu nekk rek bés la te nag bés bii man xajuma ci njaam mu ni ko xajuma ci njaam kon nag way way wu rafet moo ma gënal dunt ci la lakke boppam ànd ay jigéenu ndeer yëpp talaatay ndeer ci boppam doo ko expliquer doo xam cause yi te jëlewuloo ko ca euh, tubaab yi nekkoon ndar jëlewuloo ko ci émirat trarsa jëlewuloo cause yi ca Fuuta yooyu yëpp nga war xam nag pour mën nga xam lan moo indi talaatay nder ak lan moo waral talaatay nder kon nag ñu doore ko ci ndar ndax jamono yooyu tubaab yi ñu ngi woon ci dun bi ci ndar daawoon fa defar seen fort daawoon fa indi seen teraanga euh, bu ñu indee seen teraanga ak seen fort nag foofu ci ndar moom la daan fab di ko fab di ko jaay di ko jëmale ngalam donc tubaab yi fekk na ba talaatay ndeer di am def na nu mat ñaari téeméeri at ndar lépp la nga xam ni mi ngi woon ci fleuve senegal rek tubaab yi daawuñu ci dugal seen loxo di joxe ay gànnaay di faral ñii di contre ñii di jaxase ñii waaye bu ñu bëggee nettali talaatay ndeer nu ko njëkkee ci jamono boobu lan moo amoon ndar lan moo amoon ndar mooy que ndar ci boppam jamono yooyu dafa fekkoon anglais yi nangu woon ko ci français yi 1809 ba 1817 Angleterre dafa nangu woon ndar ak gore ci français yi téel ko boppam jamono yooyu nag le 18 juin 1815 France buuram bu di wax Napoléon dafa demoon xareek Europe yëpp ñoo ko sat satoo def benn alliance xeex a France gagné Napoléon le 15 juin 1815 fële ci Waterloo ci Belgique bu ñu fa gañee Napoléon nag mu mujj am benn traité de paix bu France signé ak Angleterre ñu koy wax traité de Vienne traité de paix boobu Angleterre dafa wax France ni ko danaa la delloo gore ak Ndar bu ma nangu woon mais nag bi condition laa lay teg yow France bu ma la delloo gore ak ndar da ngay bàyyi njaayum jaam ndax man Angleterre léegi njaayum jaam dama ko bëggatul dama bëgg bu boobaa nga seet leneen la ngay commerce ci ndar ak gore mais njaayum jaam man Angleterre bëgguma ko dama koy abolir jamono yooyu nag Angleterre defu ko ndax laa biir ak am yërmande mais dafa fekkoon ni jamono yooyu Angleterre inventé machine machine am yooyu nag mu doon wut fu mu ko jaay ci àddina te machine yooyu pour mu jaay ko il faut que liggéey yu nit daawoon def machine mën na ko def léegi mu man dindi jaam gi comme sax man jaay machine noonu la ko waxee France France nag jël décision def benn convoi bu mag le 17 juin 1816 yónnee pour ñu récupérer colonie bi Sénégal bu ñu yónnee convoi bi am na lu mat gaal yi ñoo ci nekkoon ñi ngi jóge Nantes gaal gu ñuy wax Echo gaal gu ñuy wax la Loire gaal gu ñuy wax l'Argus ak gaal gu ñuy wax la Méduse gaal yooyu nag yëpp lu mat ñeenti téeméeri nit ci ñeenti téeméeri nit yooyu nag amoon na ku ñuy wax colonel Schmalz ak ay ingénieurs yu ñuy wax Richard mooy mujj jox turam Richard Toll ñoo ñëpp nag war ñëw Sénégal bu ñu waree ñëw Sénégal ministre bi ci boppam des colonies baron Portal ni Chamal dama lay yónni senegal te boo fa demee nga fexe ba wut ay suuf ya nga xam ni daan ca bay la nga xam ni ñun ñi ko doon jëndee Amérique ñu bay ko fa di indi France mu di rhum mu di euh, suukar mu di xeme lu bare la nga xam ne daan ko man bay léegi Sénégal di ko indi France donc loolu mooy sa mission bu ma la yónni bi yow colonel Julien Désiré Schmaltz nga nekk gouverneur Sénégal nga defal ma loolu. et eh, gouverneur bi nag bu mu jógee gaalam di jëm ci Sénégal ci la nag mbir mu rëy am la nga xam ni mooy mbiru radeau de la Méduse nga xam ni mënuloo nettali talaatay ndeer te boole ci radeau de la Méduse. la Méduse boobu nag moo yeboon ku ñuy wax colonel Schmaltz. nga xam ne moo waroon ñëw nekk gouverneur Sénégal yàpp ingénieur bu ñuy wax Richard ba nga xam ne mooy joxe turam Richard Toll indi fi ay nit yu bare ay pépiniériste ay ingénieur ay botaniste ndax baron ba nga xam ne moo doon ministre des colonies dafa ni colonel Schmalz dama bëgg boo demee senegal njaayam jaam gi jeex na nga jéem fexe ba wut fay ay suuf comme ça boo fa amee suuf ñu mën faa bay la nga xam ni France amu ko mu di suukar ak lu mel ne xeme nga xam ne Amérique li ñu ko doon jënde ñoo ko fay bay di ko jël eh, gaal yi nag bu ñu ñëwee ba tolloog Nouadhibou benn ci gaal gi suux ñu ko wax méduse ci la nag officier yeeg colonel bi ñëpp nekkoon gouverneur bi ñooñu wàcc jël chaloupe bu baax dugg ci ak officiers yi ak ingénieurs yi bàyyi nag matelot yi ni leen fab leen gaal yi ngeen def rado ñu defar rado ñu fa benn buum yeew ko ci chaloupe bi xëcc nag pour dem ca tefes ga buum nga dagg rado ba booy dem ci biir géej ga rado de la Méduse boobu nag histoire moo ko traité ndeer ñoo ànd ndax bu ca kanamee daa ngeen xam euh, colonel Schmalz boobu ban rôle la joué ci traité ba nag moo mujj boy dem ci biir géej ga ñu ca nekkoon ñi amuñu lu ñu lekk ñuy lekkante seen biir képp ku ca dee yenn marin yi fab la rey la fees la lekk la ba jamono benn bato di fa romb seen leen daje fa lu mat juróom wala juróom benn marin ya nga xam ni ñoo ca desoon ñu yóbbu leen France mu nekk xew-xew bu rëy France et attekat yaag boroom xam-xam yëpp kenn ku ci nekk ni ñi nu leen di def moo am nag benn pentre bu mag bu nuy wax Géricault Géricault def ci peinture bu rëy ba nga xam ni moo gën siiw ci musée France bu ñuy wax Louvre donc tableau boobu ñuy wax radeau de la Méduse dafa lëkkaloog Talaatay Ndeer ndax ñu doon ñëw ci waalo pour wut fi tool ñoom ñoo suux donc kenn du nettali radeau de la Méduse te boole woo ceeg Talaatay Ndeer radeau de la Méduse boobu nag ay film yu bare def nañ ko ci xew-xew bu rëy la France xew-xew boobu nag noonu mu réyee France noonu la Talaatay Ndeer réyee ci Sénégal et colonel Chimase nag bu mu wàccee ci tefes gi naar yi yëpp ci gëléem mu topp tefes gi agsi ba ndar bu mu agsee ba ndar nag ñëw toog ndar tuuti fekk gouverneur bi nee na ko il faut nga dem nga wuti suuf moom mu dem Cap ci dëkku Lebu ya mais suuf sa barewul mu jóge fa dem seeti ndakaaru suuf sa barewul mu ni dëgg dem fuuta bu mu demee fuuta nag fekk na fuuta fitna dafa amoon euh, ndax dafa amoon xëccoo ci diggante almaami yu sant yi lii ak ñu sant yi wan ba mënul négocier ak moom ci la nag ñëwee waalo bu mu ñëwee waalo xool def fa voyage nee na ci benn lettre ba nga xam ne moom la bind le 4 septembre 1819 euh, euh, ministre bi nee na ko réew yu ma wër yëpp gisuma ci benn réew ma nga xam ne nit mën na fa bay bu dul waalo suufu waalo bi ma gis lépp lu nu bëgg ci bay mën na ko fa bay te ragal naa ni suufu waalo bi sax suufu gange bu nekk bi ci Inde yi gën koo riche waaw mu wax loolu nag bind ko ministre bi ministre bi jox ko feu vert ni ko mën nga dem foofu kon nga seet nooy waxanteeg ñoom pour nga wut fa suuf ci benn rapport am Chamal si nee na ba ma ñëwee ci dëkk bu ñuy wax njaw ci dex gi ci laa dayanteeg BRAC bi ak chef wàllu yëpp waxtaan ak ñoom ma waxtaan ak ñoom BRAC bi ne may ma ma waxtaan ak sama waa réew ci ëllëg sa nag la BRAC bi ñëw ak mi yëpp ma waxtaan ak ñoom ni France daal bu doon sagoom yéen waalo danga koy jox suuf sa nga xam ne da ciy bay France nag dana wut ay tata tabax ko Dagana ba tukulóor yi dootu leen mën song def tata lamsaar ba naari dootu leen mën song te daan leen jox ay gànnaay ba ngeen yéen waalo ngeen am seen indépendance ba yéen daanu bu Fuuta daawoon daanu seen kaw ak daanu bu Trarza daawoon daanu seen kaw ñun France ñu def alliance ak yéen ngeen jox nu suuf ñu jàppale leen seen dëkk gën am indépendance ah nee na daal bu ñu ci ñaari fan yi le 8 mai 1819 ci la braque bi yéeg ci gaal gi gaal gu ñu gaalu tubaab bu ñuy tuddee l'Isère ba nga xam ne ñi ngi ko defoon ci wetu njaw braque ba yéeg fa ñu waxtaan ak ñoom ñu signé contrat bi et délégation France bu signé contrat bi nag ñu ngi ko signé ci turu roi de France Louis XVIII et colonel Schmaltz moo ko jiite woon mu ànd ak directeur génie bi bu tuddee Kourou ànd ak benn officier bu attaché à l'état-major des Courtois ànd ak benn ingénieur des mines Gérardin ànd ak nag benn ingénieur agricole Morenas benn ingénieur botaniste Richard Richard boobu mooy mujj jox turam Richard Toll ànd ak benn médecin chirurgien Katel ànd ak benn médecin vétérinaire Hizar ànd ak benn interprète ba nga xam ni day bind làkku arab ñu koy Rousey ànd ak nag benn économiste bu ñuy wax Rougemont ànd ak benn ingénieur naturaliste ba nga xam ne monsieur Bakel lu koy wooye ak ay yenn ci doomi ndar yi ñooñu ñoo doon délégation SMALS pour mu signer traité de Ndiaw ba nga xam ne France dana amay ay suuf waalo et waalo nag ci boppam ñii ñoo signé traité bi ah, BRAC bi Amar Fatim Borso Mbodj ñu koy wax Amar Boy ak yeneen kilifa yu fa nekkoon comme Diawdine Madiaw Khor Aram Bakar Béthio Sacouré Diop Malo Ndiak Ndango Diaw jogomaay njaag aram kelaar jaw maarooso faro xuri sayoodu mbóoj ak màngaas bu nuy wax Boubacar Daaru mbóoj am naa tam kilifa gu nuy wax bir ci yirim sal bu mbóoj mu ngi fa woon ak jomb nax mëngooni booli mbóoj ak bëkk néeg njurbel biram kure jaañ ñii ñoo signal waalo ci tur waalo gotoon nun leen waxtaan ak yéen ba wax leen ni leen France dafa yónni woon gouverneur bu ñuy wax Schmalz pour mu ñëw waalo wut fi suuf ba nga xam ni France ci boppam dan fi wut suuf di ci bay la nga xam ni suukar la gattaxu suukar la di ci bay xeme di ci bay yu bare ya nga xam ne amul France ba mu ñëwee nag signé na traité bi njaw njaw ci boppam la ko signé ndax euh, waalo ci boppam euh, nder moo doon capitale bi mais njaw lu nuy fale njaw ci boppam lu ñuy signé traité bi ndax moo doon kapacaalu assemblée nationale bi donc njaamur waalo yëpp lépp lu doon def ci mbirum njaamur di fol ak di fol léegi ak di signé njaw lu ko doon def moo tax foofu lu ñu signé traité bi le 8 mai 1819 traité boobu nag képp ku dem Google boo bindee le traité de njaw rek daa nga mën am détail yu traité bi traité bi France ci boppam dafa waroon jox waalo at mu nekk onze mille sept cent quinze francs pour walo luye ko ay suuf mu mën caa bay et France nag jàppale waalo tabax tata dagana ci frontière fuuta tabax tata lamsaar e jox waalo ay gànnaay yu bare ya nga xam ne ëllëg ak si bu kenn dale ci waalo France jàppale ko loolu moo doon alliance ba nga xam ni mooy traité de njaw ci déggante walo ak France mais loolu ba ko waalo signé nag ci la réew yi ko wur yëpp mere waalo ci la ko fuuta mere walo ci la ko trarza mere walo ci la ko euh, kajoor mere walo ak euh, milatre doomu ndar ya nga xam ni ñoom pèlerin ñoom potin ña nga xam ni ci njaayam jaam gi lu noonu am alal ñu ni guddi yi bu ñu demee ba njaayam jaayam amatul mbay am ñun doot nu def suñu commerce ñooñu ñëpp mere waalo ci lii waalo signé France et ñooñu mere waalo nag il faut moo wax yan situation lu nekkoon mu di fuuta fuuti ci boppam jamono yooyu talaatay ndeer di am coow bu bare moo amoon ci seen réew ndax almaami Yusufa lii fal nun ko juróomi ay yoon di ko folli juróomi yoon donc dafa amoon instabilité institutionnelle bu metti fuuta ndax euh, ñu sant ñi lii ak ñu sant ñi wan nga doon xëccoo nguur ga almaami Youssouf Ali wax naa leen ne fal nañ ko juróomi yoon juróomi yoon neen buñ ko fal bi nag Fuuta toog na ñetti weer sax amul almaami e ci lu ñu falee Biram Ibra almaami Biram Biram Ibra Wan nga xam ni ci lu ñu ko falaat ñaari yoon Biram Ibra Wan boobu nag moom mooy nekk almaami septembre 1819 ba juillet 1821 mooy nekk almaami ci jamono yu talaatay ndeer dem et eh, gouverneur Chimal sax ci ay rapport am nee na Fuuta daal euh, yëngatu bu mu yëngatu temps yi ak fal beeg folle bi tax na ba Fuuta ci boppam sax euh, amuñu ay bu ñu tabaxee Tata na Fuuta du ci wax dara ndax Fuuta dafa nekk ci instabilité te man Chimal sax am naa yaakaar ni tooro euh, lam tooro Samba Déthié Sall bu yërif tooro ba ma ko jàppalee dana jël indépendance am dagg ko ci Fuuta donc loolu la Chamal sa yaakaaroon ni Fuuta du ci wax dara mais terewul keroog bu ñu fëlee Biram Ibra Wan def ko almaami ci saa si la bind lettre euh, Brak ni ko euh, traité de njaw bi nga signé France nga xam ni France day tabax benn tata ci Dagana d'accord ma ci tey d'accord ma ci ëllëg te bu fàtte ni genn wàllu Dagana Fuuta ko moom te nag duma nangu France ki boppam di tabax tataa ki Dagana boo liggéey tata boobu France di ci jël ay gànnaay di attaqué Fuuta kon daal képp ka nga xam ni tabax nga tata daggana da ngay menacé Fuuta te xeex lay indi et loolu boo ko Ibrahima Almaami waxee yamu ca ci la Ibrahima Almaami dem ñi ngi signé traité bi mai 1819 juillet 1819 donc ñaari weer rek Ibrahima Almaami dem ànd ak. émir Trarza Amar wul Moxtaar ndax Amar wul Moxtaar itam émir Trarza dafa mer ndax dafa laaj waalo téeméeri nag yi ko waalo yi doon def jox at mu nekk pour que Trarza bañ dugg biir waalo di jël nit ñi ak di fa def ay jëye at mu nekk waalo dafa daan Brak dafa daan da téeméeri naat jox ko naar yi pour naar yi bañ dugg waalo keroog ba Brak Amar Fatim Borso signé traité bi ak tubaab yi ci la wax naar yi man joxatuma leen dara. léegi nag Amar Wul Moxtaar nga xam ne moo doon émir tracé bi mer mer nag ci loolu dem ànd ak almaami Biram Ibrawan ñu def coalition song waalo bu ñu defee coalition bi nag jàll dex gi Brak Amar Fatim Borso woo Brioog Yërim Bañik Tegrel la ni ko dajaleel armée bi nga dem dajeeg ñoom ñu ngi daje temmey demee nag dëkk bu nekk ci diggante cago eh, la ak ndombo mun fa dajee juillet 1819 ah Brioog Yërim Mbañik Tegre la gañe leen gañe bu metti tas seen armée tas armée almaami tas armée émir Trarza wante bu mu leen tasee ba pare nag armée Fuuta dellu Fuuta naari yi seen bopp dellu Trarza mais duñ ci teg ñaari weer rek le 21 septembre 1819 milaatur doomu ndari dem ànd ak naari yi ànd ak émir Trarza Amar Wuld Moxtaar ñu bett brak bi càggar fekk brak bi Amar Fatim Borso dafa doon def euh, conseil des ministres am càggar benn dëkk la bu nekk Yotoroso naar yi nekk bu ñu def conseil des ministres bett leen moom ñuy wax mbettum càggar le 21 septembre 1819 donc 21 septembre 1819 mooy mbettum càggar mbettum càggar boobu nag dafa fekk barak bi di waxtaan a ay nitam ñu bett ko fa dama ñaari tànkam naari dama ñaari tànkam euh, jam loxo jawdin ma jaw xoor euh, blessé Béthio ma euh, Sakura Diop chef de guerre bu ñuy wax Moussa sa Fari Diop Sall tam ñu blessé ko ak mangas Boubacar Daaru Mbodj am na sax ay kàngam yu ñu fa rey mu di maal maalo njaag dangu jaw ak bëris ci yërim salma Diop ñooñu ñëpp ñu ngi leen reyee foofu ci mbettum càggat rey nun fa tam ñaar fukki nit ak juróom benn jàpp ay dizaine dizaine de personnes jàpp leen yóbbu leen moo gànnaar yóbbu leen toxar te ci lu ñu sax jàppe euh, ba géwal gàmmaalo euh, buy mbay de fàppen di cuun Diop yóbbu ko gànnaar mbettum càggar boobu nag dafa décapité complètement waalo ndax brak ci boppam duñ ko évaluer évacuer ko yóbbu ko ndar mu fayu ji jaw din ma dem jaw fayu ji et barak bu muy dem nag euh, joos yëpp ak mbokk joosam yëpp ak gëriyeeg joosam yëpp ñoo ko gunge ndar léegi nguur gi ci boppam Fatim Yamar Xuryaay rek moo fa desoon mooy Linguère aaw bi Fatim Yamar Xuryaay yore nguur ga jël intérim bi moom ak euh, doomam ka nga xam ne moog yaay mu bokk ndeeg baay mu di yërim bañu tegreel ñoom ñaar ñu yori nguur gi fekk barak ba dem na ndar e ñu bare sax nee nañu am na ñu teeje gi mu di Fatim Yamar yaay ak yërim bañu teggreel ak Fara Pendaaram Sall xamoon nañu mbettum càggar bi moo tax demuñu càggar ndax gis nun ni ci ñunu rey ñëpp ci càggar wala blessé leen amul benn teejee donc nee nañu néegu mbokku jabaru barak bi Fatim Yamar Xuryaay ay mbokkam ba ñuy bett càggar ñoom demuñ foon kooku itam am na ñu ko wax. e mais daal Moubarak Amar Fatim Borso demee Ndar di fayu yi intérim bi Fatim Yamar Khouréye moo ko jël te loolu tam day wane ni ren la woon bu amoon moom moog Brak bi ñoom ñaar ñoo yone woon nguur gi. Brak bi day nekk Brak moom mu nekk Linguère mais ñoom ñaar ñoo doon ko gérer réew mi bi dafa dem di fayu yi Ndar moom mu yore réew mi dafa yore réew mi ba dafa signé benn traité. ak Mohamed Ould El Kawri fekk na émiru Trarza bi am na benn doomu baayu naaram buy xeex moom foofu ca Trarza Linguère euh, Fatim Yabar Xuriyaay woo ko ni ko comme da ngay xeex sa doomu baay kaay ñu def alliance ñu xeex ak émiru Trarza bi ndax dafa nangu nguur gi ci yow ñëwal ma jàppale la comme ça ñu xeex ko boobu nga xam ne Fatim Yabar Xuriyaay moo ko signé Chamals gouverneur france bi moo doon témoin bi boo xoolee traité bi da nga gis ñi ko signé euh, Mohamedou Kurdi moo ko signé ci turu Trarza waalo moom boo xoolee ñu ko signé ñi Fatim Yamar Xuraay moom lu njëkk bind bind ci Fatim Yamar Xuraay Linguère aw Yërim Bañ Teggereel doomam Brio prince héréditaire ma jaw xoor Jawdin chef militaire Njaak Jogomaay prince du pays donc ba bërëg bi génnee dem Ndar di fayu ji Fatim Yamar Xuraay dafa jël intérim bi fab nag doomu magam bu jigéen ndax yërëm bañ teggareel la teggareel la ak Fatim Yamar Xuraay ñoo bokk ndeeg bay bu fab doomu magam bu jigéen ñoom ñaar ñu kojër réew mi mais nag dañuy nekk ñaari tejje e mu signé euh, euh, waa Trarza bi ni ko nag léegi dama bëgg ngaan da yow ñu xeex sa doomu baay bu nekk bi Mauritanie foofu nag il faut ma fàttali leen benn mbir bu amoon Trarza waxoon naa leen ni leen traité ndeer doo ko nettali te nettali loolu amoon ci yeneen réew bi Trarza ci boppam fin wu dix euh, début dix-neuvième siècle émir Trarza bu ñuy wax Ali El Kawri mooy Ali nit ku ñuul ki ndax comme nu ñuy wax Samba Laobé rek naar la mais du ko wax nit ku ñuul ki Ali El Kawri moom moo nekkoon émir bi mu dee nag bàyyi doom ju ndaw Mohamedul Wuld Ali doom gi nag nekk xale mënul yore nguur ga ñu fab doomu baayam bu ñuy wax Amarul Moxtaar wul ki jox ko réew ma doomu baay gi nag tee réew ma nguur ga neex. xale bi bu mu demee ba majeur nag ni ko delloo mu nguur gi doomu baay bi ni ko mukk du ko delloo ci la Mohamed Ould Ali dem wut ay gànnaay guerre civile commencé am loolu moo tax ba Trarza menacé waalo Fatim Yamar Khoureyaay dem signé traité alliance moom ak kooku nga xam ne duñu nangu woon nguur ci moom loolu moo indi coow li et Mohamed Ould Ali boobu nag ñëw waalo ànd ak Fatim Yamar Khoureyaay di xeex Amadou Mokhtar et eh, talaatay ndeer bi nag pour nii ñu songee Amadou Mokhtar songe ndeer ba à talaatay ndeer il faut que ñu wax leen la jamono boobu walo ci boppam ànduñu woon ndax brak Amar Fatim Borso ma nga ndar képp ka nga xam ni ne xarekatu joos nga woon ak néegu ndeyam yaa ngi àndoon ak moom ndar ma doon jëkkëru euh, euh, lingeer bi. bu euh, kàjj Farapenda Adam Sall moo toppoon ci BRAC bi mais moom itam kenn responsabilisé woon ko Linguère bi daf ko écarté woon jël doomam Brioc Yérim Mbay ñu teggareel responsabilisé ko mooy itam mu toog di seetaan et donc Linguère bi ci boppam moom rek mook doomam ñoo yor woon réew mi loolu boo tax keroog ba leen di naari di song e waalo donc pouvoir bu isolé moo amoon foofu léegi nag le 7 mars 1820 ci la talaatay ndeer di am fekk na ba talaatay ndeer dem fekk na waalo ak Linguère Fatim Yamar Xuryaay jëkkëram nekk ndar yeneen kàngam yu nekkoon yëpp àndandoog moom mu isolé wu foofu la talaatay ndeer di amee le 7 mars. kàngaamu waalo yëpp nag seetaan ko bàyyi koog doomam néegu tey jëg rek yore moo tax le 7 mars 1820 ba émir Trarza jàllee traversé dex gi. fekk na càggar lakk ndax càggar moo doon camp militaire bu mag bi ba xam ne waalo foofu daan def ay soldaaru ndeeram pour ñu yiir ndeer pour ñu surveiller Trarza fekk na ndaar yi naar vingt le 21 septembre lakk nañ ko ba càggar ci boppam nekkatul véru ah am lu waxtaar ño song ko dajeeg yërim bañu tegg rel la ci benn law benn rivière law bu ñuy wax nac nàcc law boobu mi ngi ci ginnaaw roosu bu ñu dayee ci nàcc moo yërim bañik eh, naar yi ëpp leen doole tas armée yërim bañik bu ñu tasee armée yërim bañik nag eh, ci la naari jubal nag ndeer jàll ci sëkk bëgg néeg ak nayre jëm ndeer bu ba jëm ndeer nag Fatim Yamar Xuree xam ni yërim bañik gañe nañ ko mu dem jëli yëre góor yu nekkoon yi foofu solu yëre góor fab gànnaay woote woo jigéen ñi góor ñu fa nekkoon ñëpp wo mbay mbooye bi mbay mbooye mooy euh, gardam chef de gardam mu ni ko góor fi nekk nu ànd ak man woo ndukkaan ndukkaan moo doon intendant intendantu reen bi ñoom ñoom ñu dajale ko sol yëre góor nag dayeeg naar bu ñu dajeeg naar yi songa naar yi Amadou Mokhtar tas seen armée xeex ñoom naar yi reculer mais bu ñu dajeeg naar ba naar yi dem ba ñu gañe leen ci lu ñu sorxole nag tas seen i musóor naar yi seen seen létt xam ne ndeketi yoo ay jigéen ñoo leen dàq ci leen naar yi dellu si nag songaat ak ñoom encercler leen encercler ndeer bi dem dugg ci tata bu gën mag bi ci néeg bu gën mag bi bu ñu demee xeex bi yàgg nga dem ba ci biir barke euh, euh, barke Demba Law bi boo Njaay nga xam ne moo gënoon joge Linguère Fatim Yamar Yaay moo ko ni ko ah Linguère bés bu ñaaw na de Linguère Fatim Yamar Xuryaay Fatim Yamar Xuryaay Anta Diop Giré Dieng gàkku njaag maam ay sa naalew bés bi ñaaw na lu ñuy def mu ni ko bés lu mu ñaaw ñaaw ñaaw rek nettil bu ñaaw ko gën bon kon nag bés bi lu mu ñaaw rek nuñ ci def la nga xam ne ëllëg daa ñu woy e, dem leen ngeen jëli poutre bu fi des bi ngeen indi ngeen suy ko fii ci saket yëpp ak ci ñax yëpp te ngeen ñëw fii ñu dajale ko ñoom ñëpp fa poudre yu fa desoon yëpp suy ko wurale ko néeg ba mooy néegu teraanga mooy néeg yu mag yooyu suy ko mu fab tubaab di ko wax braise sànni ci bu commencé biri sànni ci nag ñu commencé ko tagge jigéen ñëpp way ko wayu tagge way ko way bu nuy way lingeer yi euh, way ba nga xam ni euh, géwél yi duñ ko koy way mooy euh, njaabaane jigéen bu mën góor way ko di ko wax jigéen bu may wóor di way ba ñoom ñëpp ñu nekk dóom et laata nag muy lakk loolu fab na ñaari doomam yu jigéen mu di ndatte yàlla ak njëmbat ñi nga xam ne ñi ngi amoon fukki at juróom-ñetti at mu boole leen ak ay surgaam ni leen yóbbu leen ci seen kër bàggen ci ronq seen bàggen ndikku Fatim Borso nga xam ne mook Barak Amar Fatim Borso bokk ndeeg baay ngeen rawale leen foofu ndax jiwu te teejeeg bi euh, des noonu la Fatim Yamar Xuryaay euh, defe njàmbaar googu lakk boppam euh, ci bés bi nag ci ndeer naari jàpp nun fa lu mën ñaari téeméeri nit jàpp leen yóbbu leen gànnaar e ba loolu eh, nettil bi sax am na ñu koy nettali ndax ñu bare du ñuy wax ni talaata leer ndax du lépp du lépp ndax sumal sa nettali na ko du lépp ndax Yoro Jaw nettali na ko du lépp ndax archive coloniale yi yëpp nettali na ko donc du lépp. Yoro Jaw nee na eh, ba Barak nekkulee foofu nekk ndar ci la Amarul Moxtaar tas ndeer ba mu tasee ndeer nag ci la Linguère aaw Fatim Yamar Xuraay lakk boppam ci néegu teraanga ba. ànd ak benn jigéen bu ko doon jàppale bu ñuy wax mbarka Demba Law bu Boy Ndiaye beneen bi nag mooy que nii Fatim Yamar lakke boppam ñu bare dañ koy nettali rek mu mel ne ay jigéen yu ordinaire ya nga xam ne duñu bañ ñu jàpp leen jaam pour ñu bañ lakk seen bopp déedéet jamono yu Fatim Yamar Xuraay di lakke boppam moo doon chef d'état par intérim waalo fekk na jëkkëram ci boppam nekk ndar mu yore réew ma moo yore woon réew ma nekkoon barak bi moo nekkoon lingeer ndax diggante brak bi di ñibbi si moom ci boppam si na ay traité te traité boobu boo demee archive da nga ko gis mu signé ko euh, doomu baayu naar bu contrôle émir bi ni ko kaay ñaan ñu xeex sa doomu baay boobu. donc jigéen la woon ba nga xam ni chef d'état la woon du ay jigéen rek ñu yemale ko ci jigéen ji nga xam ni dafa bañoon ko ko violé wala jigéen ja nga xam ni dafa bañoon ko ko kii déedéet chef d'état woon doon chef de guerre ba pare dafa xeex xeex ba ñu gañe ko mu préféré lakk boppam balaa muy nekk prisonnière yëri mbañ ak teggareel la naari jàll ci leen nag sio boor yi ak jaamur waalo yi dajalikoo nag ni yëri mbañ ak teggareel la yow ma nga xam ni sa tànt moo lakk boppam ca talaatay nder ndax teggareel la xuryaay ak Fatima Amar xuryaay bokk ndeeg baay yow lu ñuy dënk léegi nga yore réew mi ba Barak Amar Fatim Borso wér njaw ak sio boor yi dénk ko yëri mbañ ak teggareel la yëri mbañ ak teggareel la dayanteeg chemal si ndar chemal si indil ko juróomi gaal ya nga xam ne dañ ci def ay poudre ak fetal yu bees tàq ya nga xam ne France jox na leen ci la nag Yërim Bañik woote waalu yëpp waalu yëpp wuy si ko ndax keroog bu mu wootee ci la waalu yëpp ni Yërim Bañik mi am na gànnaay donc ànd ak moom xeex dana yomb. angam yëpp wuy si Riquet wuy si Berti wuy si Montel Ngangone wuy si Maroso wuy si Bécco wuy si Mangone boole itam jamono yooyu ku baroon doole si wuy si wàllu yëpp ñëw wuy si eh, Brioc moom eh, ba yërëm bañu teggreel fekk si ko Dagana mu nekk armée bu rëy rëy rëy ci la nag Brioc fa armée bi jàll nag dugg gànnaar ni balaa ñuy xeexa naar yi fii nekk biir waalo ñu mu dugg gànnaar xeexa ñoom ci seen dëkk lakk ko bu boobaa ñoom daanu génn wàllu fekk suñu foofu ci la Brioc Mbodj fam te jàlle dex gi keroog bu mu jàllee dex gi mu ngi ko jàllee ci Dagana dajeeg naar yi fu ñuy wax bërëxaat xeexa ñoom gàdd gu fa nekkoon yëpp mun récupéré ko xeex ngam nangu ko ñu teg semaine mu xeex ak Trarza yeeg Bragna yi nga xam ne ñoo daje woon def coalition mu xeex ak ñoom ci benn dun bu ñuy wax bax la ci kanamu bokkal gàññe leen reyal leen lu ëpp téeméeri góor ak juróom-benn fukk mu jógeeti delluwaat dëkk bu ñuy yox Nduur ci wetu Daara Daara ak Nduur ñi ngi nekk ci actuellement ci route de Rosso bi Mauritanie booy dem Nouakchott xeex ak ñoom gàññe leen rey leen ay soldaar yu bare demati Boutefri Boutefri nga xam ni mi ngi jàkkaarloog Richard Toll ñaar fukki kilomètre juróom la mu xeex ñoom gañe toog na ñetti weer biir gànnaar ba nga xam ni fexee na transa bi yëpp yëri bañ teggari la récupéré ko Amadou Mul Moxtaar mujj dem à cent cinquante deux cent kilomètres ci biir désert ba bàyyi koog sud Mauritanie bi yëpp yërim bañu teggari la jël ko bu muy xeex ñoom nag am naatam ay mbokk doomu ndaram ñu def contingent bu mag jàllee fii ci goxu Mbaaj fekk si ko gànnaar mu wax ba mbay ngóone ak biram tut ñoo itam jàppale ko ci xeex bu noo xeex et nee nañu Yërim Mbañik bu mu defee ñetti weer gànnaar yooyu ba muy dellu si ah, Farapende Jaw moo ko nettali doomam Yoroboli Yoroboli nee na bàyyam ko nettali bàyyam nee na ah, Yërim Mbañik Tégré la bu muy joge gànnaar di dellusi toog nunu ay fani fani fan pour jàlle nag yeeg gëléem yeeg xar yu mu jëlee gànnaar nee na moom Farapenda mooy Baye Yoro Jaw nee na amoon na fukki at ci yooyu nee na mosul gis bi moddu teraanga ba nga xam ne dugg na ci biir waalo nee nunu euh, yërim ba ñu teggaleel du nu mujj jël monteel waalo yëpp mooy nappkat yu nekkoon waalo yëpp lu du mujj réquisitionné ñu leen ñëw leen ngeen jàlle teraanga gi yërim ba ñu jëlee ci naar yi e yërim ba ñu nekk bu ñëwee waalo dafa toog tuuti reposé wu coow toppati ko ndax bu mu toogee tuuti bi nag fekk na jaw din ma jaw xoor bu ñu blessé woon ak Beki Sakhour wér mu àndaat ak ñoom nag jàll nag gànnaar une deuxième fois bi bu mu jàllee gànnaar ci la dem nag à plus de cent kilomètres fekk fa Amadou Mokhtar xeexam moom kii dëkk bu ñuy wax Tivravout la ko naari di wooyee eh, walo waalo yi di ko wooyee war a foofu nag reyal na fa Amadou Mokhtar lu ëpp ñaari téeméeri katam e nangu tante royale bi jàpp jigéen yi nga xam ne ñëpp mbokk amadul moxtaar ba mujj sax jàpp jabaram bu ñuy wax maraas nee nañu moom bu mu jàppee maraas dafa di ko du ma la rey comme ni ñu reyee sama tante mais dafa dagg ay ñaari noppam ñaari nopp maraas yooyu da yërim bañ indi waalo euh, keroog bu mu ñëwee waalo wane ko ci la ko di way ni ko yërim bañ dàq na naari naari naan wéy di wéy nga ci xare boobu ci la Béki Sakure reyee euh, xarekatu naar bu mag bu ñuy wax Illi Xamlis ci la ko Béki Sakure reyee ci loxo boppam ci lu reyee itam euh, doomu émir bi euh, Birame Wul Ali ñooñu ñëpp ñu rey leen mooy fànte nag capturé mascar bi mascar bi mooy fa nga xam ni foofu la tente royale bi récupéré ko yëpp ñëw e bu ñu defee loolu nag almaami Birame Ibra Wan dégg ko takk xare bu mag ndumba woo lamtoor samba décci woo éliman donay ñu defa armée bu mag jëm si waalo nag pour xeexe ak waalo waalo yi fu ñuy wax jaaluwaal yi et jaaluwaal yi boobu tam e yërim bañu teggreel la dajale na fa soldaar yu bare daje ak ñoom chimals indi gaal def ci ay canon jàppale leen ñu xeex tukuleer yi jaaluwaal yi ba gañe leen et nettali jaaluwaal yi boobu nag Yoro Jaw nettali na ko ah ku ñuy wax góor gi amudu wàdd ci chronique du waalo nettali na ko ndax neen nu bu ñu ñëwee bay wàcc xare barak dafa yónnee ci imam ci almaam yi biram ni ko wax ma ñaata xaalis laa lay jox te xare bi bañ am almaam yi bañ sàmb dékki lam tooro ni ko maag dëkkaareeg waalo waal yi nangul mais mu bañ bu mu bañee nag bu ñu songoo ba xeex jàlluwaal yi français yi jàppale leen fekk français yi am nañu ay gaal yu ñu defoon ci dex gi def ci ay canon tiire leen tas armée tukulóor yi ñoom ñu song armée tukulóor ci la fasu almaami biram dugg ci benn pax mu duggee ci pax nag eh, Briogue mboj Fanta dem ba joxe ko bëgg ko rey ci la walo waalo yi woo ko ni ko kii sëriñ la boo ko reyee day deretam bu tuuro waalo dafa ñu yàqal ci la eh, Briogue Mbodj Fanta bàyyee almaami bàyyi ko mu waxoon nu leen ni leen eh, talaatay ndeer doo ko wax mukk te nettaliwuloo jaaliwaal yi loolu waalo waalo yi bëgg duñu bëgg foo koy nettale rek nga boole ñaari e mais nee nañu leen talaata ndeer bu mu jeexee nag e, il faut que ñu fob nettali boobu nekkoon tragédie ñu xool ci jamono bii nan la ko jamono demee ba fexe ba peuple yi ko bokkoon yi ak ñu ko seqoon ñi nan lu ñu demee juboo ba deret jaxasoo ko seen biir ndax tubaab nee na les tragédies finissent toujours en mariage mooy que loo gis rek ci lu ñaaw ci diggante ñaari famille rek bu ñu seyaatee rek lu ñaaw la réer te nag talaatay ndeer bi ak lu mu ñaaw ñaaw ñu nag émirat tarta sey bu ñu sëy bi ci diggante bi moo defar yëpp ndax Fatim Yamar Xuryaay moo ko seqoon ak émir tarta amarul Moxtaar Amadou Muxtaar xeex ak Fatim Yomar Xuryaay ba Fatim Yomar Xuryaay lakk boppam mais le 18 juin 1833 donc 23 ans après Talatay Ndeer doomu Amarul Muxtaar muy émir Mohamed Al Habib dafa dem denc doomu Fatim Yomar Xuryaay ñu koy wax njëbbat ndax jigéen boobu lakkoon boppam doomam bu jigéen njëmbat moom la doomu ku mu doon xeexal di takk donc Mohamedul Habib papaam moo doon xeex ak yaayu njëmbat Mohamed El Habib denc le 18 juin 1833 njëmbat Dagana neen nu keroog bu muy denc njëmbat moddu teraanga bu nekk jox na ko njëmbat ci téeméer téeméeri jaam téeméeri gëléem téeméeri fas téeméeri bëy téeméeri nag lépp lu mat téeméer téeméeri leeso jox na ko njëmbat denk njëmbat nag am ci ëlli njëmbat Elli Njëmbat Fatim Yamar Khouryaye nga xam ni nag moom avant la lettre sénégalo-mauritanien la woon Elli Njëmbat boobu nag nekk na Émir Trarza onze ans yaayam di Njëmbat Booj di wolof papaam di Émir Trarza Elli Njëmbat boobu nag jamono yii nga xam ni ñu nag Mauritanie yàlla fi ñu boole wax ma sax frontière bi mais boole nu teraanga yu mel na gaz bool nu teraanga yu bare moo tax nit ku mel na Elli Njëmbat boobu duñ ko war fësal te maa ngi demandé sax ñu def pétition pour que pont bi ñuy tabax ci diggante Sénégal ak Rosso ñu tudde ko El Hadj bët ba boo ñëwee Rosso Sénégal ci wàllu senegal ñu bind ci buntu pont bi pont Bour Trarza El Hadj bët Fall. mais boo demee ci Mauritanie ñu bind ci Émir Trarza Elli wuld Mohamed El Habib wuld Amar wuld Mokhtar mais benn nit bi rek la te benn nit boobu pont la ndax El Hadj bët boobu pont la et ñuy wax nag. ni lingeer njëmbat boobu Fatim Yamar Xuriyaay boobu nga xam ne moo lakkoon boppam doon xeexa naar yi genn wàllu njabootam yëpp jamono yi ñu nga Mauritanie ay naarlu ndax Fatim mi Xuriyaay moo jur Elli moo jur euh, njëmbat njëmbat jur Elli njëmbat Elli njëmbat guddi yi ngi toll famille yu émiru Trarza surtout Elli njëmbat lu ñu ci ëpp te lingeer Fatim Yamar Xuriyaay lingeer euh, njëmbat moom ci boppam Mauritanien la woon ndax moom jabaru émir Trarza la woon jur doom Émir Trarza ñu koy wax Ely Njëmbat am sët Émir Trarza Ahmed Saloum wul Ely am na sax sët ba nga xam ne résistant armé la woon ñu koy wax Bouraas Bouraas Ely Njëmbat ko jur moom ci boppam moo fetal commandant Vincent ci Dagana gi en 1903 donc euh, ci résistante yi ak ci héroïne nu Mauritanie yi Njëmbat ci la bokk. et mbokk gi yemul foofu Amar Fatim Borso ba nga xam ni mooy doon jëkkëru. Eh, Fatim Yamar Xuraay di papay Ndate Yàlla ak Njëmban Mbooj jigéenam ndikku Fatim Borso mooy maamu genn wàllu kër Ibra Almaami yëpp ñu sant ñu wan guddi yi samay jarbaat yu mel na ñoom bilal rek wan ñoom ñëpp seen maam ndikku Fatim Borso la bokk ak Amar Fatim Borso te nag seen maam Almaami Biram Ibra wan moo doon xeex Amar Fati Bors donc deret ja jaxasakoo na ba lépp la nga xam ne jot koo nettali mu ñaaw wala bu nekkoon fitna ci diggante Trarza ak waalo diggante waalo ak Fuuta ñu ko seqoon ñu séente nañ seen biir bu lu ci ñaawoon dañ na lu ca des nag rek mooy que traité ndeer boobu lii luñ ciy tiré en conclusion mooy que bu nit ñi wax ni dafa mën ay jigéen yi nga xam ne bëgguñu ñu leen jàpp jaam bu ñu lakk seen bopp déedéet benn chef d'état bu jigéen bu doon wax Fatim Yamar Khouraye bu doon xeex ak Trarza doon xeex ak Fouta pour des questions de géopolitique xeex fetalanteeg ñoom bu ñu jekku ko mu préféré xaru boppam mais du woon benn ménagère rek wala benn jigéen bu ragloon ñu jàpp ko loolu moo amoon. beneen beetam mbirum alliance la woon diggante France Fouta Trarza ak Waalo kenn ku ci nekk amoon nga say raison ya nga xam ne wax nga dëgg lu tax nga def alliance Waalo ci boppam soxla woon ànd France pour France yiir ko. yër ko ci ñaari adversaire am ñaari adversaire am Fouta ak trasa Fouta tam mënu woon nangu France ñëw Dagana def fa tata di ko menacer Trarza tam ñëwee tam mënunoo woon dex gi ci boppam waalo dem signé ak français yi contrat ba nga xam ne ëllëg ak sibil ñoom dootuñu mën yore dex loolu mooy talaatay indeer mu nekk nag la nga xam ne day nekk roowukaayu suñu jigéen ñi fexe ba le 7 mars le 8 mars di journée internationale ba nga xam ni ay ouvriers Chicago la ñëpp di feete ñun balaa ñuy feete ouvrier u Chicago yooyu ñun ñu feete le 7 mars Linguère Fatim Yamar Xuryaay Xuryaay Anta Diop Giré Dieng Gàkku Njaak maam sa Naalew